salary day. Yep, salam alaikum, Senegal, Dakar, worldwide. Yep. Your boy go by the name Seven Scar, that bless. Yep. Yep, Nonila, aka Arthur. Yep, I'm on Flex, Flexo from that bless. One. Yep. Wake up in the morning, ain't no holiday, man, I gotta keep running. Bon, BPF, c'est euh, passé en futur, les signifier quoi. Bon, c'est un album bon, depuis des années nous préparé. ñu nekk di ci liggéey bon le 8 bi nii la la sortie bi quoi le 8 euh, juillet dina am point de presse au maison de la culture Douda sec aussi dina am science dédicace bon c' est un album boo xam ni waaw c' est un album boo xam C'est c' est une autre facette de Dablessed quoi. dafa nekk loo xam ne nii ñu ngi ko tàmbalee depuis longtemps. par rapport ak suñu premier produit bi ñu soog génne woon ça fait vers les sept ans. environ et Dieu sait pas mu doon suñu premier produit boo xam ne nii def nañ ko si marché bi. c'était en réalité benn street pour wane lu ñu lu ñu lu ñu li ñuy liggéey ak fi ñu toll donc ça fait longtemps nag ñu nekk ci yeneen affaire get back to the underground xam loolu ni nekkaat ci bagage yi liggéey liggéey ba tey jii ñu indi leen loo xam ne nii peut-être dina dina créer beneen différence dina indi beneen beneen touche ci musique bi ñu toll fu mu toll nii. dafa am benn benn moment on est plus mainstream li ñu wax gars on est plus on di gis so sometimes the artists they need to get down pour mun nek ci ay réflexion mun nek ci ay recherche pour mun a mun a dugg ci ay affaires yu bëri pour mun a indil gars yi loo xam ne nii peut-être dina différent ak lu ñuy gis pas sax euh, loo xam ne nii ça veut dire que né mosuñu ko gis mais lo xamné ni des spécial des original quoi donc c'est pour cette raison Dable Sylla a pris le temps mom di réfléchir à son projet yàlla ba yàlla def tay mu mat ñu ko mun a mais ça n'a rien à voir avec qui, même si c'est les plus grands artistes il y a des moments où tu ne les vois plus parce que dañuy dañuy réfléchir à dañoo fonk la def dañ ko le temps pour réfléchir tamit bëgg ñu gox gars yi donc succès bi intéressé en réalité le fait d'être tout le temps à la télévision et d'être à la radio ou bien non non non on vient on fait un truc assez calé et puis on passe à autre chose. bien sûr nous ñaax Thiaroye Azur mooy suñuy fief Thiaroye Azur lañ tàmbalee Thiaroye Azur la représenté fu ñu dem dans le monde xam nga Thiaroye Azur dinañ fa teg du sax benn affaire. déjà nañ fa teg benn concert boo xamante ne nii c'est pour nos fans qui qui qui habitent à Thiaroye Azur et ci alentour bi. dem feneen ak ci biir Dakar dem feneen ak feneen ci ñu soog a song leneen mais Thiaroye Azur moom la ñu mës a représenté te dinañ fa def dara. dinañ fa def sax ay mbir. du yem ci benn affaire rek. xam fi gaay di xalaatee moy ben concert mais dinañ fa def concert def euh, soirée def euh, séance dédicace parce que. tu sais euh, affaire bi du la la xewé mais il faut que mo am bo xamante ça va se passer à Thiaroye et te loolu loolu yëpp la mën nañ tënk c'est juste par rapport à l'album mm-hmm. Mm-hmm. mais am nañu projet projets futurs xamné c'est des projets yo xamné da fay nek sax ay problèmes problèmes sociaux et des trucs comme ça mm-hmm. dans le futur

ça va ils font marcher ce qu'ils font. Mm-hmm. ça va il y a des artistes qui débouchent de partout ils s'affusent, mais bon. On ne va pas se permettre d'être la police du rap. mais bon na gars il est nice. mais na gars yi waaw xam nice mais. man à chaque fois rap je man artiste quoi. minorité bi ni artiste la damay gis sama gars yi bële def benn affaire mu naaj mu ne xaw ko ma def moom benn benn def benn sound naija bu garaaw nga ne foog ma def comme loolu mais doo ñëw indi sa feeling yow en tant que artiste non ba ñëw fii quoi. créativité bi mooy mooy li nga xam ne du question talent parce que boy waxuma sax booy booy ak mag ñëpp am nañ potentiel boo xam ne nii am nañ énergie boo xam ne nii mën nañ ko indi ci musique mu noonu loo xam ne nii tey Sénégal fépp lañ koy dégg waxuma pour du pour ñun kese pour Sénégal yëpp la quoi c'est pas des critiques yoo xam ne ni dañ koy lancer à que ce soit mais dafa am lu important loo xam ne gars yi dañ koy fàtte ci game bi ci musique bi mooy forester original quoi chaque groupe bu nekk war na mën a garder originalité compétition bi foofu la war a nekk de ce fait bu ñu génnee dans l' extérieur ñu mën a compétir ak yeneen artistes yu nekk ci monde bi mais dans le bon sens cette compétition day gën a valoriser musique rek te yaakaaruñ ci ñun ñu ngi ci boole ñu ngi ci biir bi di ko def loolu mooy suñu ID about that li muy wax ni pour pour pour pour euh, yokk si dara da ngay seetlu ni fii Sénégal am na ay artistes yoo xamante ne amaguñu chance wu siiw mais il suffit que artiste il nek ci ginaaw dañuy yema def comme ñu yema garder identité style pour après ñu exister mais il veut pas ni dañuy problème exister mais comme donc gars garder identité ñu def recherche bu recherche alors c'est très important